célibataire rek laa yërëm man célibataire a jàll yara laa yow foo ne si mim réew waa dama ne la man damay damay classe yi laa yërëm ñi nga xamante ni ah ay cinquante cinq lan ñoom ñamaxi ñamaxi wunu <laughs> ak fi réew mi toll xale yi ni nu ferosee def seen façon waaw ñoom jéggi siraat ñoom tey nga dee wuyaay fii lu fi xew ah ah yu tës sa naa ba xeet googu nga war koo laal si biir <laughs> non célibataire laa yërëm seddul li ko dal seddul gis nga marié yi non marié yi macha allah ah. wax dëgg te yàlla tam ndax ñoom ku mel ni suma rakk ji nga xamante ni ñu ngi koy wooyee bàyyi Omar bi mu takkee soxna sax yàggul mais day dagg mburoom day dagg mburoom midi lay ñëw si place bi bàyyi feeg tontoo gara ak ma jambal ñi nga xam ne ay célibataire lan ñuy xalaat. ak grand babs yenn célibataires yi ak grand ñaa xam nga loolu tamit day xaw a doy waar mais man daal faana marié yi sama classe ki nga xamante ni dañuy yeewu buñ laalee jàkka ja ginnaaw buñ laalee jàkka ja ba ñëw buñ yeewoo dañuy yëlbu <laughs> si kaw lal bi la ñuy yëlbu ñoo far yow jàmm si yow ok salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam soxna tur bi naka la. maa ngi tudd Serif Diop Marché Dior. Marché Dior. Mhm. di jaay xeetu baax baax yi nii. waaw gis nga de. Mm. parfum yaa ngi nii ak cuuraay yi nga xam ne xale jigéen yi ak ñi nga xam ne ñooy borom jëkkër yi. Mhm. di fi ñëw tamit di ko taam di fi jënd si tamit. loolu ak seddaay bi nii dama la ko laaj ndax xale jigéen yi nan lañ ko jëlee affaire yee ngi dox. ak seddaay bi nii. waaw ñoom nag ñu ngi fi ñëw. dëgg yàlla chaque jours nga gis ko xam ne dina ñëw defar peñam. Mhm. mu ñëw defar nakam bu baax bu doy. Mhm. ah fas yéene koo bégal alaajem te jàpp naa ne képp koo xam ne tamit jeeg bu baax nga. Mhm. yaa ngi ñëw tamit eh, tàmm si fii nga xam ne mooy place Serif marché joor bi di fi commandé say commande cuuraay yu baax. di ko taajal sa alaaji ci seddaay bi. jox quelques rek si cuuraay yi. waaw xam nga fii nag moom dafa bari ay cuuraay yoo xam ne. bari na fi lu ci mel ne ay baxoor am na fi ak yeneen échantillon yoo xam tamit yu bees la parce que chaque jour dañuy dem voyage yi dem jënd ay bagages yu bees di indi mën naa ne bu ñu fi doon lim la nàkk bu neex ak ay parfum yoo xam ne ni yu raar la daal yu extraordinaire yoo xam ne ak ay cuuraay yoo xam ne yu neex la daal mi ngi fi. kon daal sama wàllu jigéen ñi gis nañu seen bopp bu baax a baax ci place waaw macha allah parce que chaque jour tamit ku nekk daal di ñëw fii pour commander ci cuuraay bi. xale yu jigéen yi <laughs> jéeg jéeg mineur yi ak suñu ah. jigéen eh, man moom célibataire laa gaa ah yow nekkoo si jàmm dëgg la damay def nag ay baax baax ndax man mii tarkaal macha allah fii nii euh, kaay taaru kër Omar Ndiaye kër Serigne Sall wi gii ngeen dugg fii macha allah man damay yëngu ci ay cuuraay ndax man cuuraay laa débuté jaay ay man bi may bi may bi may bi may bi may jaay cuuraay 19 ans laa am maa ngi def formation centre dama daan defar cuuraay yóbbu suñu centre sama maîtresse dama leen daan wax ne sama yaay moo wax mi indi ko lebal leen ba fin du mois or que man la woon. parce que man sama bàjjen bi ma yar bi sama bàjjen ko yàlla na yàlla yërëm ko te yéex a ñëw moo ma jàngal jaay te jaay cuuraay la la la la la doon def. cuuraay moom bëri na parce que tey jii sarxataan mi ngi fi macha allah dafa neex ah dëgg neexul cuuraay jidda baa ngi fi. Hmm? gawe gi nga xamante dañ koy xooj macha allah tarkaal di ki sànni ay cepp ngi fi ah eh, kii gawe mis yu baa ngi fi sampeng bi dañ koy daggate ba mu sew xooj ko bu seddaay bi ñëwee ci nga koy génnee tarkaal la macha allah ak yu baax man man eh, ga salibax dama divorcé waaye nag ñaanal leen ba ma amaat ku baax ah, waaw ay ñoom nuisette ak liñ ko mën a wax daal bëri na sedd bi moom géej gi yéen laay waxal def leen ba mu baax ku leen tey def ba mu baax mi ngi def ba mu baax te baax na ku si mënul sa waay ku ne su génnee bu taseeg saytaaneem di nga ko ñàkk dee leen cuuraay ah di def ay waxuma chaque jour nuisette déedéet parfois dee leen def ay sër yu weex tàll macha allah tarkaal la teg ci body ah affaire yi di xaw a boo wanee ginnaaw yaa ma gën a xam jaljal yi di xaw a signalé tuuti góor da nga koy mën nekk saytaaneem ci côté bu ne ba bu génnee dara du fees bëtam. kon profité leen ci sedd bi te ngeen ñaan ñun ñun tamit ñu am. jërëjëf dëgg neexal. waaleykum salaam soxna nga naka la. man El Hadj lan may wax. El Hadj El ah, hmm. léegi dama bëggoon xam seddaay bi nii yan xeetu cuuraay nga am di proposer ci suñu bokk jigéen yi. période bi nii cuuraay yi ñu am fii pour yi mën a proposer bari na. am nañ ay goye saaf am nañ ay soosu kaani. Hmm. am nañ ay goye Angleterre. Hmm. am nañ ay. Goye VIP digg jëb tamit mooy loolu. Eh. dina ëpp de. yii moom koy jégg na de. ah eh. yi ñaata la. prix yi sans dépend rek ñun fii moom ñoo fi nekk jigéen ñi prix yi am na 500 ba 1 million loo am da nga am cuuraay. kon ça veut fii xale yi jigéen ñi daal suba ngoon. bu dégg bëccëg ñoo ngi fi ñoo ngi fi ak ñoom wax dëgg yàlla. Ah. waaleykum sëñ bi. waaleykum salaam mhm. cuuraay yi. Mhm. jox ma quelque tur rek. waaw fii de mooy ñàmbur business moom fii moom boo ñëwee xeetu cuuraay boo bëgg am na fi xeetu baax baax yëpp ñooy xeetu jéggi daal maanaam am nañ cuuraay yu neex tamit aussi am nañ ñoom saadaat am nañ euh, ay naka naka jida euh, ak comment dirais am na tamit ay parfum yu neex. ay parfum yu neex xale jigéen ñi nan lañ koy dundee nan lañ koy préparé. waaw maanaam fii moom képp ku bëgg a teral sa jëkkër rek wala képp ku bëgg a téye sa jëkkër rek. Mhm. bari na lu luñ fiy jaar maanaam. ak xeetu baax baax ak xeetu baax baax yi waaw. am nañ cuuraay aussi te cuuraay moom. Mhm. moom li yàlla xam doy na seddaay bi yëpp ngeen jigéen waaw seddaay bi daal moom ñoo ñoo yor dëkk bi. xam naa ne yéen a kër yëpp ñoo leen di ñoo leen ah waaw loolu